mbokku gal TV mbokku internet yi ngi fi ci esplanade stade Amadou Barry ci far sep eh, tay nak ma taxaw ak wa bergerie bo xamni champion bi ma taxaw mo nuyo wax ma moom fan ak fi moy ban bergerie bi kilifa jardin. si ñoo ñong lay ziar bu baax ñu lay ziar la jox sa way bu baax baax baax fi moy bergerie Xidma nek cambrin 1 euh, am benen extension bo xamantene mi ngi nek Maris euh, tour bi Bamba cham la ma ci liggéey ak sama waji di Moustapha Diagne. waaw ñun ñoo ci nekk daal di ci di ci yëngu daal. di ci yëngu waaw. xidma lan mooy xidma. waa xidma moom xidma moom maanaam mooy liggéey rek. waaw daa nekk baat boo xamante ne nag moom day dañ koo dañ dañ koo baaxoo lool di ko dégg ci yoonu murit waaw te ñu gëm ni maanaam lii ñu nekk nii mhm. liggéey rek moo ci mën a maye dara daal ah, waaw macha allah ngeen ne ci euh, kañ ngeen ci nekk ak euh, fan la njëkk a taxawee avant ngeen am ñaari bergerie yi waaw bergerie bi nag euh, biento mu def quatre ans cinq ans waaw quatre ans cinq ans waaw léegi quatre ans cinq ans yàggul seen sang ngeen liggéey ak yan maal ngeen liggéeyee ba ba li nga fendi tey. waa bari na nag bari na bari na parce que euh, tout au début Siré euh, Diakhaté doon ñu jox ay euh, maal. Mhm. ñu ci liggéey bu ci lu ci mel ni mën naa citer Ousmane Nawel. Euh, par la suite mal bi gëna def euh, nit ñi la nek ben doomu UNESCO. la euh, yaaji di yaaji dom digal voilà moom béyti dama ñëw fekk ci ñaari bâche. ben na moment. ak benen bâche noir et blanc bi fa waaw béyti nag yàlla dafa def li gën yàlla dafa def li gën bi mu defee premier tour ba pare rek après ci la daanu daal waaw ma mais macha allah daal rëccuwuñu benn yoon li mu jaaree ci bergerie bi ndax ci diir bu gàtt def na fi loo xamante ne maal dund na ba deeta def ko fi waaw kan mooy béyti ak fan la jóge nag suñu jëwrin suñu waay ñu koy wax baay Mor Gueye mbuur ah, moo ko juddulu jox ñu ko jox ñu ko ci xol bu sedd guy Touba Kawsara exactement waaw di ku baax moom moo ñu jox béyti euh, ñu ñu liggéey ci macha allah ba mu la koy jox ñaata weer la am ak ñaata weer la def fa kaw ak lan la fa produit waaw bi mu feree rek bi mu feree rek bi mu feree rek daanaka bi mu feree rek waaw laataa mooy fer sax waxtaan nañ ci waaw waxtaan nañ ci mu yombal lañu ko lool tamit waaw wax dëgg mën naa ni sax yooyu noonu yëpp moo sabab barke bi. waaw. macha allah léegi ban mois la daal ñaata mois la daal. mi ngi daanoo à 18 mois. 18 mois moo mois ak léegi ba mu naan léegi ñaata weer la ay 4 mois 5 mois ah, yàggul yàggul yàggul macha allah yàggul ma gis ko ci photo bi ne mu taaru mais lan nga noo gisee production production am nag macha allah. macha d'ailleurs bien avant ñuy ñëw ci foire bi rek euh jotoon nañ def remarque que ni éleveurs yi apprécier nañ ko bu baaxa baaxa baaxa baax a baax éleveurs yi apprécier nañ ko bu baax euh te bi ñëwee ci foire bi aussi tamit on a eu la confirmation ñu ci santat yalla bu baaxa baax. macha tay tey box ba la ma nekk dama fa gis benn cin ak ay agnel euh fi ma gis fi beneen def na espoir la xawma ak yeneen i femelles léegi lan moy production ak la nek fële lan la. waaw box bi nekk sama ginnaaw euh, añeel ya fa nekk ak jeune mâle bi yëpp moom moo leen jur moom moo leen jur waaw kenn raxu leen waaw dañoo dañoo dañ ne woon nañ ñëw ci seb bi pour fësal maanaam li nga xamante ni mâle bi jot na ko liggéey waaw kon euh, moom moo jur jeune mâle bu ñuul boobu jur añeel yi. lépp kon production am xanaa. lépp production am production maal bi la. waaw lépp maal bi euh, béy di à 18 def na jaloore. Euh, non macha allah éleveurs yi nag moom ñooy wax. Mm-hmm. waaw waaw ñoom ñoo naan bu fi yàggoon. waaw dina kéemaane lool daal waaye nag sant yàlla rek. waaw dafa gën. ok tey euh, fii lu fi nekk. waaw fii nag daanaka boo gisee añeel yi ci ginnaaw. seen yaay yi ñoo nekk fii. waaw ak femelle yoo xamante ne aussi ñi ngi soog a jur. ak añeel bi nga xamante ne moom jotu ko woon tëb. waaw ak espoir bii yi nga xamante ne ñu naan ko Paris. di doom ci nasru euh, yaayam nekk doomu Kocc. yaayam nekk doomu Kocc. mu juddoo également ci bergerie bi. Nasrou bu Baye Mor. Nasrou Nasrou bu baay Mor exactement waaw. kon sëtu Rita la <laughs> exactement daa doy war de. ndaanaanu fa mel ah? la ndaanaanu fa mel yee ah? Kéemaan loo ci ah? wax rek am na lu des. moom mooy kan. moom mooy Paris. am ñaata mois. mi ngi ci 18 mois. mi ngi ci 18 mois actuellement nii. macha allah mhm. euh, ànd ak yéen femelle sa tenue bu rafet bële kan la. tenue bi également doomu Nasru la. duñ ko waaw moom su ma jumul présenté woon nga ko ci daam bi. ok mu nekkoon box Baye Mor. waaw ginnaaw gi ci la ñu ko. ci la ñu ko jox waaw. waaw yow fi nga rootee la ndaanaan la. ok rob bu ñuul bële kan la. rob bu ñuul bi ñun ñoo juddul yaayam. ñun ñoo juddul yaayam. muy doom ci bay na. Euh, yaa ji di doomu Jéelaan yi. bay exactement. Siré Siré mayoon ñu ñu tëb. ñu koy remercier au passage. Siré ban wala Jakite ci ah, boppam waaw Siré Jakite waaw. ok macha allah bu ñuul bi doomu nindi la. Mhm. moom moo naan moom moo nekk moom la ñu naan canadien. waaw moom aussi également doomam mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci tëng mais attends balaa maa demaat fii dama fi xawa jaxasoo bay na xam nga defa nekkoon Ligue des champions. bay na moom moo gagné woon. Euh, euh, fila fila bi dafa def dafa nekk li ci Siré. Euh, non non non nekkul ci Siré de. yaayam yaayam lañu sire Siré jakite mayoon tëb. yaayu. waaw maanaam yaayam ci boppam. yaayam ci boppam. dañoo amoon benn doomu Cheikh Anta bu ñu Cheikh Ndiaye séddoon. ñu dem ci Siré mu may ñu tëb. Siré ci ban ma ci Jéelaani. Ah, ñu jël doomu Jéelaani bi teg ko ci teg ko ci bay na. Ah, mu waaw ah, accord maa ngi doog a ñëw nag kon euh, yaayam. yaayam la la la jëlaani jur. exactement nga jëli ko moom yaayam teg ko ci bay na. exactement mu juddu macha allah. Euh, borom boobu baat bi waaw kii moom euh, moom it aussi tamit ñi ngi ko recruter. ok muy doomu Moïse. Moïse bu Daam Fall. macha allah. waaw également moom it def na doom bu rafet ci ci euh, loowu añeel yi nga xamante ne béyti bàyyi na ko fi. ok kon daal production béyti moo nekk na le production production béyti ñëw wala am na lu def kër ga. Euh, am na lu des kër ga. am na lu nekk nii tamit. am na nekk nii waaw. en tout cas production bi rafet na ndax ay jeunement yu ak ay añeel yu doy waar ñoo fa nekk tey euh, Paris mi. taxaw euh, lan la Paris bëgg a def lan nga bëgg a def indiwaat beneen maa liggéey ci wala liggéey ak Paris ba ci kan. waaw waaw yeggali liggéey bi rek parce que lépp xar yu baax la rek. Uh-huh. waaw xar yu baax la rek. waaw waaw ñun daal li ñu li ñu li ñu li ñu tax a jug ci foiru ren bi. Uh-huh. moy euh, pour won wa axlu élevage que ni boobu ba ñi ngi ñi ngi liggéey. ñu xam ñu bu baax nak ñu xam ñu bu baax. ñu man ma ngi gis say say image fu nek exactement exactement ay production yu rafet na exactement ñu xam ñu bu baax donc euh, c'était une occasion ñu génn. voilà fësal fësal li nga xam bi mooy suñu première première première exposition. ah machallah voilà voilà voilà ñu génn fësal li nga xamante bobu légui ñi ngi koy liggéey. ah non mais ba pare nak dafa man man xitma bi may gis ci bergerie bi moo rafet may gis ci état yi mo loola. non bokul bokul bokkul du moom du moom xam naa xam naa day bëgg am rek incha allah. léegi man bu may ñëw fan laay ñëw. Euh, Maristes wala Parcelles. foo ci ñëw rek baax na. foo ci ñëw rek mais ñëwal ñëwal ñëwal Cambérène parce que Maristes làqu làqukaay bi la quoi. Ah. en tout cas gis naa ne exposition bi. Euh, na macha allah euh, quatre ans yàggul. Mhm. mais qualité bi ngeen may woon surtout ci côté ah production béy di bee ñu war ko xaar mais li ngeen fi teg ci femelle nii nekk na liggéey bu rafet. waaw liggéey bi nag. fi ngeen tamit dafa dafa doy waar. waaw waaw waaw liggéey bi nag waaw mën naa ni. comme comme ni nga wax noonu. waaw ah. Baye jàpp na ci bu baax. bien avant Baye Mor. waaw ah. Siré jàpp na ci bu baax. waaw jàpp na ci bu baax ñu leen di remercier au passage ak yeneen yeneen éleveurs. macha allah voilà parce que tamit tënkuñu suñu bopp fenn. xar bu baax rek la ñu xam. Mhm. voilà mais. li ma la mën a wax daal mooy. Hmm. Euh, nañu élevage bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax parce que may ñu suñu bopp dara xam nañ li càmm gi laaj tey it ñu ngi ciy nangoo sonn di ci di ci déployer bu baax a baax suñu moyen. non non loolu feeñ na parce que ba ma ñëwee li ma njëkk impressionné mooy exposition bi euh, exposition bi dafa rafet déjà. bâche yi rafet na li ngeen ko defee rafet na waaye xar yi aussi mhm. j'ai vu de des de qualité quoi. Mhm. macha allah waaw démb rek benn éleveur mi ngi naan ma dootuñu la mayati nga naan nga taxaw ci foire bi naan lii sa exposition la <laughs> kon loolu sant yàlla la daal ah, waaw sant yàlla sant yàlla la bu baax a baax a baax a baax. champion lay sànni kàddu lay wax. ah ñun de xanaa di di sant ëllu élevage man la Moustapha Diagne xam naa nekk ci nekk dongo ci. ci sëñ bi rek sëñ sëñ Bamba. ñu ànd liggéey bi. mu ni comme ni mu ko waxee rek noonu la demee. donc euh, base bi en général c'est c'est du ndigal. Euh, boo seetloo euh, xar bi am na ndigal. Ok. mi am na ndigal. añal yéene seen papa sëtu ndigal la. di doom ci UNESCO. donc ndigal ñëpp kenn dootu ko présenté ci élevage nek mm. Baye Mor. Baye Mor nek champion dëgg. Ah. waaw juddu leen ndigal. juddule euh, ku mel ni Jazaaka. waaw juddule tamit euh, euh, bu so baal bi nga xamante ni moo jël foire bi passé donc ndigal am na continuité moo tax lu bëri ci liggéey bi basé woon nañ ko foofu. muy liggéey bo waaw mooy sikoori sikoori waaw. sikoori mi ngi toj Joal. effectivement effectivement effectivement xar bi yaayam xar bi hmm. ah, xar bi yaayam. Uh-huh. jël nga leen vidéo fële. Euh, Mbour. Mbour mooy surtout Bosco bi nekkoon foofu noonu. macha allah ah. waaw musoon musoon nga leen jël vidéo. <laughs> gaa yi kontaan naa en tout cas waa xin moom euh, exposition bi xaw ma c'est une première xaw ma waaye daal ah rafet na trop ah macha allah kontaan naa di ñaan yàlla nag euh, ñu ñu ñu indi ngeen xaru concours wala. waaw ñu ngi évaluer xool rek. waaw lu mu mu joxe rek incha allah ñu def lu laaj ngeen def ko. baax na incha allah waaw macha allah kon leen di xaar. baax na jërëjëf bu dee xaru concours ñëw na. waaw ñëw na dinañ topp waa Xidma. xool eh, yan la ñuy dugal ak fa la ñuy jëm incha allah. incha allah eh, jox leen adresse beeg bi. waaw adresse bi Cambérène 1 la. numéro bi di 77 320 05 85. waaw macha allah eh, kon daal béykat yi li mu fi bàyyi nañ ko topp incha allahu rabbi incha allahu rabbi waaw actuellement bee waaw du doomu béyti eh, xam naa dégg naa ñu naan maal bu teelee daanu rek il faut dafa am lu fi bàyyi loolu lool moom loolu moom am nañ ci njort eh, moom am nañ ci njort bu rafet moom ngeen ni 18 mois la kon mm-hmm. doom bi <laughs> incha rabbi tey xam naa ni comme que ci baabaru ngeen roote te ngeen ko ci eh, ay femelle baax lañ jur waaw loolu loolu moom si kuul moom